Ousseynou Diédhiou la tudd nek euh, d'abord militant PDS ensuite nek Karimis euh, nek conseil municipal en bel parce que maa ngi si jàllee si listu PDS. légui dañu bëggona xam naka nga gisee ndogal bi conseil constitutionnel jël que ni Karim Wade bokul ci élection présidentielle du 2019. waaw loolu de moy lima ci wax moy waxu ñëpp waxu ñëpp teg nañ ñu doole jaay nañ ñu doole. waxu ñëpp mooy ñëpp ko gisandoo li dal Karim dañ ko seetaan ba mu dal keneen moo di Khalifa Sall ñëpp door a gëm ni ni ki fi nekk day jaay doole écarté na des candidats potentiels kon loolu mooy bëgg na bëre choisir na ay ay adversaire am mais Karim dañ ne moom amul carte d'identité est-ce que kon nekk loolu moo waral mënul bokk ci élection yi tamit xam nga loolu mooy loolu mooy waxu vraiment yàpp Sénégalais yi parce que Karim yàgg na voté élection ñëpp gis nañ ko muy voté élection kon loolu jamono bu muy voté lan la doon voté lan la doon day ñëw rek dugg si bureau de vote voté ni Macky Sall ni mu forcé woon bureau de vote voté mais Karim ñëpp xam nañ ni dugg depuis ay élection mu ngi voté kon loolu firnde na nag am na carte d'identité. kon cela veut dire que conseil constitutionnel li mu wax ay njuuj njaaj la daal. conseil constitutionnel daal c'est une grande honte pour le Sénégal conseil constitutionnel rusloo nañu encore conseil constitutionnel ñoom dinañ ko layoog yàlla conseil constitutionnel dañu fogoon ni ay kilifa lañu ñi nga xam ne ni vraiment kenn du leen dicter, kenn du leen euh, def def loolu li nga xam ne ni jaarul yoon parce que ñom dañoo prêter serment dañoo waat seen diggante ak yalla liñ def xam nañ ko teguwul ci yoon léegi naka nga gisee euh, qui bi Mambay Mame Niang mi wax ne dina indi ay nerf pour mu jàmmarloo opposition bi lan nga gissé loolu yow. xam nga kooku Mambay Mbaye Niang moom d'abord dafa dafa amalanteeg Sénégalais mom d'abord sunu 29 milliards nako lijeenti d'abord. 29 milliards. 29 milliards yu Prodac yi coow ngi fi batay mu ñuy fonto di wax ay waxu mom dal nervi la mom mom moy blé goudé wu Macky Sall té gis nga blé goudé fu mujjé CPI la jëm mom ma ma may ñaa moomule na lijjën suñu vingt neuf milliards ba muy wax mu ngi wax naan ay ay nervi mais ay nervi ñun ñun population la ñu àndal population moo mën nervi moo mën police moo mën gendarmerie population ku wedd na nga laaj compaoré kon su ma la déggee bu baax yéen pare ngeen pour jàmmaarloo nervi yi Mame Mbaye Niang nervi yi moom si boppam na jiite dina fekk dina xam lu ko si fekk Mame Mbaye Niang moomu le su jiitee dina xam lu ko si fekk ñun daal on est avec le peuple ku ànd ak peuple nag yaa am doole te yaakaar naa ne le peuple les forces de l'ordre peuple bi lañ fi nekkal te lu si dul dëgg dañuy ànd ak peuple léegi naka nga gisee marche opposition bi nga xamante ne préfet da leen a waxoon bu ñu dem côté université pour ñu awee côté kii Bourguiba te ñoom ñu dem ba tax mu am ay càmmaarloo naka nga gisee loolu yow en tant que militant. waaw xam nga tamit nit ki doo ko bañ mu yuuxu quand

ay ay barricade ay force de l'ordre ainsi de suite kon ku mel noonu dafa fausser règle de jeu bi dal en en démocratie daf ko fausser carrément rien que pour se conserver le pouvoir té nak li dañ ko waxtane wat ñu ko ëppoon doole jaar nañ fi légui ak yëngu-yëngu yi am ci géopolitique bi fane lan ngay wax askan wi manam ñi bokku ci kujé gi ak ci euh, pouvoir bi lan nga leen di wax bon li ñuy wax ñun ñëpp dañu retrouver ji ñoo bokk nday ak bay mais nak ki nga xam ne ni moom moo jiite réew mooy incarné li nga xam ne ni mooy dal bu bu bu bu ko tegee si yoon dal dana am bu ko tegul si yoon leneen bu amee moom c'est le responsable parce que dañoo bokk réew mi ñun ñëpp bokk yem moom dafa am ku mu gagné démocratiquement mu dem dafa gagné président waat mu dem démocratiquement jeu politique bi leer lu rafet la lañ def foofu moom nag dañ ko buñ ko gañee na yëf rafet mu joxe ko normalement su gañee nag ñu xam ne ni moo gagné mais nag

publier na ay ay ay ay ay nga xam ne ñoom ñoo ko publier jox faveur seen côté ko ràcc jëmale sa boor waaye dina leer dina xam ne laax wi laax wu tàng la bu ko dugalee si gémmiñ bi dana ko wàcc dana lakk gémmiñ gi